walla waxtaan wi waxtaan wi yow yaa waroon ne fële walla rek lañ d'accord waa rek mooy maami xale yi ci kër gi kii ay doomam ak sama doom yi ñoom Babacar ñu wokk benn maam borom këram bi jur doomam Koungheul la dëkkoon kii ki jur yaayam Koungheul ñoo bokk ña ngeen ak faaleer ay ceddo lañ nag waa léegi nag waxtaan wi dañoo am gan numéro un man sama gan mooy ay Aidara ndax li ko waral xam ngeen ko sama yaay moo tax te it wax dëgg yàlla moom dafay so dafay doxal sang bi ay at a ngi nii fu ma ko nuyoo bu génn ndeysaan dix mille jox ma ko te boobu dix mille yi da koy da koy lem ñeenti yoon ba mu doon ni tembar pour mu mën a dugg ci kalpeem su tuuti soos mu di ko yëkkati di ma ko jox ma ma di ko ñaanal yàlla yàlla jox ko lu ëpp dix léegi nag àtte leen <laughs> sa budget ñaata la waaye wax baaxal rek nit ñi la ñaata la ah. léegi mu ne mi ngi ci un milliard cinq cent moo koy signé mu door a génn baax na xam ne moom xam nga ku sonta ay dara du sàcc bo mënu ko sax bu ko doon jéem sax du ko mën xamul loolu waaye macha allah eh kon yow cinquante neuf milliards yi bokkoo ci bi ma dégg ñu ne xaw ma maire Dakar bu mag moom lañ ko jox. non non boobu boobu parti bi rek la. eh boobu dama koy nangu ji. dégg waaw kon nag waaye yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na moom nag muy sama sang. yéen ñii xam ngeen baayam ca Farafeñ hmm? ñu ci bëri xam nañ ko fii fii moom duñ la yaay kan wallaahi wallaahi wallaahi ci lu wér a wér moom itam ndeke alaaji Malick mi mooy sangam moom mooy sama sang moom alaaji Malick ay sangam man moom mooy jox sagaru njaam moom alaaji Malick koy jox sagaru njaam kon nag affaire bi li gars yi wax xamoo double fond la xaw ma léegi moom mooy sama sang alaaji Maalik mooy sang ah mu ñëw di bërëm kër gi ñëw di bërëm kër gi nag ah dama leen koy waxee na ko burki soldaaru burkinaabe ba ci jamonoy tubaab bi boobu lii ma leen wax baxal bi ñu leen daan baxal dañoo réglé woon ne yaaj ñu foog ne ragal tubaab la fekk xam caay-caay tubaab waa ji nag di garder ci mu monte garde ci buntu Kaaba ñu ne ko tey général bi dafay ñëw ne d'accord léegi nag mu toog oto bu ñëw mu ñëw taxaw ne c'est général ñu ne non non mu ne passé di passé di paase ba mu yàgg ñu seen benn oto kii daw ba yegg si rek taxaw mu ñëw xool ko mun na ko toi c'est combien même un point deux points trois points quatre points cinq points et cinq points ça fait même pas intérêt mu ne ça fait même pas un trait mu ne ko toi c'est c'est sarsa ou c'est caporal mu ne ko je le général mu jël fetal di yenu teg ci kaw bopp bi commande bi jóge féer commandant bi jóge féer daw ñëw ne mooy général teg mu ne ko pourquoi ça dégg nga Burkina soldat Burkina ne ko quand ça mon père se met sur mon épaule quand ça le père de mon père se met sur mon tête et moi ça sang so may sir moon le pon so wàllu songe to mon kon sir moon to kon nag amet affaire baa ngo ay dara la lislaam ay dara la sant santul njaay santul juuf santul ay dara rek la sant kon nag bisimil bisimil téye fa ngo